réew dafay torlu à des moments historiques moment boobu lañu ñu toll. dalleen ak jàmm mbokk internet yi ñuy topp seen seen bii di la Patriotes TV tey jii nag mën nañ ne Ousmane Sonko journée bi mën nañ la la sa jotaguma am ay xibaar mooy que neexul benn yoon ci moom mii di Ousmane Sonko rawat na sax ñi nga xamante ñoo di patriote yi. ndax nag bu ñu sukkandikoo si ñi nga xamante ñoo di avocat mi rawat nag ki nga xamante moo di Juan Branco mu poste ab poste fi nga xamante ni moo di si page Facebook am ak si Twitter am di xam ne daal cour CEDEAO bi nag mujj naa jàppale ki nga xamante ni moo di président Macky Sall sa la nga xamante ni moom la bëggoon maanaam Ousmane Sonko mii daal amul fa ndam benn yoon ndax ab defet daal la fay mujj jëlee ndax nag cour euh, de CEDEAO cour justice bu CEDEAO bi nekk fee si Abuja nam daal nee nañu ki nga xamante ni moo di état bu Sénégal fu ñu sukkandikoon ba tas parti bii di Pastef daal fi sukkandikukaay bu baax la kon ñoom tamit dañ leen di fekkal si loolu noonu maanaam dëggal ko ne parti Pastef boobu daal dootul wéy di exister fi nga xamante ni moo di Sénégal du mën a dem si ay élection kon ki nga xamat ni moo di Ousmane Sonko bu bëggee bokk si élection day wuti beneen parti wala mu wuti sax li nga xamante ni moo di coalition leneen la ca topp nag di génne gi nga xamante ni génne woon nañ ko ci tur bi waaye ñi nga xamante ñoo di cour de justice bu CEDEAO boobu daal ñoom loolu dañ seen neutre àdduñu ci benn yoon kon daal na ngeen xam ne délibération bi jeex na foofu sa cour cour de justice bu CEDEAO ba Ousmane Sonko parti bii di Pastef tas nañ ko radiation bi nga xamante ni bokkoon na ci lañ na waroon a ñoom daal àdduñ ci benn yoon laaj bi nag mooy comme nag Aïssata Tall Sall waxee woon ndax nag eh, état ni nga xamante ni mooy cour bu CEDEAO dogal bi nga xamante ni jël nañ ko état bu Sénégal da koy jëfandikoo wala nag maanaam ñoom ndax comme la mu waxoon la def maanaam même bu cour bu CEDEAO lu dogal lu mënta jël bu ne état bu Sénégal duñ ko appliqué.